abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te Partout TV Partout TV Partout leen ak jàmmoo moom mii di wuyoo ci turo Gaston Mbengue mën nañ ne miin nañ ko lool fii ci diwaanu Sénégal rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy yëngatu ci wàllu làmbu muy promoteur boo xam ne rek bu mag a mag a mag la fii ci biir réew mi yàgg tëgg ay combat ay ngoon yu nga xam ne rek yu am solo la ci biir làmbu combat yooye mu daan tëgg nag taxoon ñu baree bari daal di koy miin moom mii nga xam ne nag mooy per Gaston Mbengue dëkk foofu foofule ca diwaanu Louga ñu toog mën nañu ay weeri weer kenn gisatu ko ci yenn ti activité yi nga xam ne rek mu ngi faral di am ci biir làmb ji niki tey nag jot nañ information kenekat doomam ji nga xam ne rek moom mooy wuyoo ci turu Makan Mbeng daal dinay génn nekkat papam dafa feebaroon ba hospitalisé foofu la nga xam ne rek moom mooy France feebar bu méttee méttee métti sax ba tax ñu baree baree bari jàppoon ne sax jamono yi ñu toll nii moom mooy loolu wante kat jot naa xamle kenekat ins bi mi ngi am tànn bu baax a baax a baax a baax moom mii nga xam ne nag mooy Gaston Mbengue gannaaw nag bi ñu toogee ay weeri weeri weer kenn déggatul benn action bu nga xam ne rek mi ngi koy amal maanaam benn activité ci lu dellu ci wàllu làmbu ba tax doomam jii di Makane Mbengue nag jot a xam ne li ni mel nekkat bu yàggatul dara rek dinañ gisaat mu daal di dellusiwaat fa seen reprendre li nga xam ne rek moom mooy ay activité am